وتاد كل يوم وسكون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 sàmm kàttanal ko ba mbooleem naal yi mu naal suñu borom defal ko ko moom itam mu yeggale ko ci ak mbooleem mbokki taalibe yi mbokk yi ñoo ci diwaan bu sell di Taïf waaye itam ci bés bi nga xam ne mbooleem njabootu di anam bu wute nga xam ne moom lañ ko daan màggale yi nga xam ne mooy woos ginnaaw ba suñ bi joxee ndigal yi nga xam ne mooy wane ni mbooleem mbokk yi jullit yi nga xam ne ñoo daan ñëw fii ci Taïf te daan jugee ci ay dëkk yu safantikoo ñu daal toog uh, ci seen ay uh, bërëb ngir daal di uh, amale foofu màggal gi waaye teewut fii ci diwaanu Taïf dañ fiy amal ak njàngu alxuraan ak xasayit waaye tam ak salaatu ala nabi ngir yéen yool bi jëm yu màgg nga xam ni ñoo waral bés bi muy Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Serigne Mbacke Mouhamed waaye tam ak Serigne Abdou Fatah Mbacke Gaynde Fatma mbokki xam ngeen ni kuréel gi dañ ci am taxawaay bu solo ba tax na équipe wilaaya production fas yéene leen taxaw mboolem activités yi nga xam ni mi ngi fi xew moo xam mooy njàngu alxuraan mi commission d'organisation sociale ñu ngi koy amal fii ci diwaanu Taïf mbokk yi kon boo leen bëggee dara bañ leen raw ci euh, bés bi nga xam ni moom la ñuy euh, fàttaliku Serigne Cheikh ak euh, Serigne Mbacke Mouhamed ak Serigne Abdou Fatah Mbacke Gaïndé Fatma da ngeen ñuy topp ci chaîne bi di Wilaya TV en vous waaye tam ngeen activer cloche de notification bi ngir dara bañ leen raw astaghfirullah al-azim wa min sawaa'ir wa min quyuub sa'altu bi haqqi wajhi llahi maghfiratan تبت له من جملة السقائي دائري ومن دمائري قابر لاغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فحمني العلم وسلني علما وعملا وادبا وفهما ربي الاكسب العلوم النافعه وجعل حياتي من سقاء مانعه اسب لي الاسرار والقوامدا yaa xayra man kasafa sirran xaamida lijmax jamia ma tafarraqa lada xati min alxayri wa safil xalada liiqul lada tafakkuril azama ya rabbi bikun wal tanziman xalami ya habliya ya akramu fi tilawa xayran kasiran minka wal xalawa jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi fii ci commission bi nga xam ne mooy comité organisation jàkkaarloog kenn si jëwriñ muy Serigne Abdou Ba président organisation kon dañuy fas yéene dëkk ci moom gaataan ay kàddu sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp te di leen ziar. màggal gi wax nga dëgg ni mu demee rek noonu la sëñ bi soppi màggal gi. Ehm, te soppi gi nag dafa mel ne rek eh, xañ na yi nga xam ne daana ci bokk te bokk ci moom lañ ci génne rek muy guddi gi yi nga xam ne daana am ci ay yëngu-yëngoo yooyu waaye lépp loo xam ne dañ ko daan def ci bëccëg gi lu mel ne xasida yi ak bernde yeeg yi ñu daan def yëpp dañ koo ful dañ koo yokk waaw loolu daal lañ seetlu ci màggal gi ci soppeeku gi nga xam ne yàlla dogal na sëñ bi soppi ko màggal gi. bi lañ dindi ndax loolu moom lañ daan def ci guddi gi. ren ñu ne bëccëg la dañuy yandu ci jumaa ji section bi moo koy def moo tax dañu mobiliser section bi yëpp ñu ñëw ci jumaa ji euh, war a yandu pour jàng al kaamil yi fexe ba yokk njàng mi comme ni ko sëriñ bi waxee muy xes day ak kaamil yi moo tax nag xam nga mobilisation bi ci section bi yëpp bu ñu dajee ci jumaa ji moom day xaw a doon loo xam ne lu lu lu kii la lu am jëmm lay doon lu am solo la euh, tey ñu bëgg li sëñ bi bëgg yi mu am ko moo tax aussi berne yi ak lépp yi dafa yokk parce que xam nga personnel bi nekk fii nii moo ëpp bi ñuy toggal ay xéewal nii ci añ bi moo ëpp fuuf que li ñu daan toggal moo tax euh, maam berne yi dañ ko yokk boo xoolee waañ mi ren da nga xam ne dañu yokk xéewal yi bu baax a baax. xam nga yeneen section yi daan nañ ñëw te bu ñu sañoon it aussi ñu ñu ñëw mais xataay bi ak yërmande bi sëriñ bi am moo tax mu. wayefal ko pour section bu nekk defe ko fa mu nekkee wàcce ay kaamil moom wax dëgg yàlla section bi mobilisé wu nañ bu baax a baax ñëw teew bu baax a baax a baax comme ni nga xam ne noonu lañ ko waaw waaw di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp euh, di ñaan ñi nga xam ne ñoom la ñuy defal màggal gi muy sëriñ Seex sëñ Mohamed ak sëñ Abdou Fatah suñu borom jotal leen ci yool bi te taas ñu seen barke te lépp loo xam ne jàng nañ ko fii ci kaamil ak alxuraan mu nekk yërmandey suñu borom sotti ko ci jaam ñi ba nga xam ne li nga xam ne moom lañ yaakaar lépp suñu borom sottal ko ci bis bu màgg bi nga xam ne moom lañ doon màggal tey di sant ñëpp di ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom ñu fekke ko ay déwén yu baree baree bari te bu ñëw rek gën a màgg bi nga xam ne moom lañu romb ya rabbana salli salatan taqbalu biha alkitaba sa qabulan yusbilu sitran jamilan ma hayyan kulla uyub ma salaamin daimin yudri alquyub على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وسصح أحمدا على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وسصح أحمدا بسم الله الرحمن الرحيم هذه أسماء الشور أورثني خير الكتاب الأكرم بفضله وانقاد النحو الكرم أدل الكتاب ساكرا له بما لقتار عيسا سلالا سبما أنالني ما لم ينله خيري من قادني له بحسن خيري يقود للأكرم ما أشاء لأنه يفعل ما يشاء يحبد كل صلورا بالحركات وسكن وجاد كل يوم